astaghfirullah al azim wa atubu ilayhi min zawahiri wa min uyub mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñi ci armée yi yàlla leen yàlla jéggal waa barzaq yi ñi nekk ci hôpital yi yàlla na sunu borom fëgg seen bopp ñu dellu ci seeni kër ci jàmm ci barke alquran mbokk yi ñu ngi leen di laabire tuub dellu ci suñu borom ndax ab jaam waru cee jóg moom waaye saa su nekk war na koo dolli ba tax na fan yi ñi ngi nemmeeku nit ñi dem gi ñuy dem dem gu méttee méttee métti waaw mu ngi mel ni adduna day bëgg a tukki ba tax na ñi fi desandi tey te te bëgg am ak ak gudd fan ñi ngi leen di laabiré yoo xamante ne nii képp ku yàlla dogal nga di ko def suñu borom mën na laa may gudd fan bi ci njëkk nag am na genn xasida boo xam ne sëñ Touba moo ko bind ñu koy wax mu tax xayaat yi képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng insha allahu rabbi sunu borom dana la may gudd fan bi ci des muy istixfaar muy astaxfirullah am na ci yoon woo xamante ni képp ku koy liggéey bu soobee yàlla sunu borom dana la may gudd fan mooy adadu nafsi bi mooy 1947 da ngay jàng set jàng 40 jàng 900 jàng 1000 waaye diggante bu nekk aaya boobu nga ciy def istaghfiru rabb fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursilu sama aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatan wa yaj'al lakum anhaaran nga def ko benn yoon maanaam boo jàngee juróom-ñaari astaghfirullah def aaya bi benn yoon jàng astaghfirullah ñeent fukki yoon def aaya bi benn yoon jàng astaghfirullah 900 fois def aaya bi benn yoon jàng astaghfirullah mille fois jàng aaya bi benn yoon léegi nag boo noppee nga jàng sóoratu noox benn yoon jàng benn salaatul fatiha képp ku koy def da ngay gudd fan képp koo xamante ne ni yàlla dogal nga nga mën a wut téeméeri xeer xeer yu ndaw yi nga ñëw ci nga gas benn kàmb nga jël limu at yi nga am maanaam bu fekkee ne ñaar fukki at nga am da ngay jël ñaar fukki xeer sànni ci biir kàmb bi li des ci xeer yëpp benn bu ci nekk nga tari ci benn kursiyu ëf ko ci xeer bi ñaan yàlla gudd fan daal di koy suul foo xamante ne nii euh, du du du duñ ko gaaw a sulli incha allahu rabbi tamit sunu borom dana la may gudd fan. ñi nga xam ne ñi ngi dund nañ fi daaw seen bopp nit ñi talatuñu kenn ku faatu fàtte nañ la 12000 bismillahi rahmaani rahim képp ku ko def boo faatoo di nga dem àjjana ki ñi nga xamante ne nag faatu nañ ba dem. nañ leen ñaanal jële naa fu wér ni képp koo xamante ni def faatu na nga dégg ko nga defal ko ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim benn faatiha ñeent fukki suuratul ixlaas ak benn kursi kenn mënu koo teree dem tabbi àjjana te ñu gën a lu ci di def ay salaatu ala nabi salaatu ala nabi mooy tax nit ki jege yonent bi dem àjjana sori safara na nit ñi góorgóorlu ci salaatu ala nabi beneen bi ci des nag. muy jaamu yàlla yàlla moom boo ko jaamuwul mu bindal la loo jaamu soo ko ragalul mu bindal la loo ragal gars yi nañ ragal yàlla nan jaamu yàlla nan topp yàlla ñu dimbalante te bàyyi waxante wax ju bon wax ju ñaaw adduna bi léeg-léeg da ngay nekk ak nit wan ko ginnaaw sax ñu ne la ñu ne la faatu na kon nañu gën a góorgóorlu ci tuub ak sàkk sarax képp ko mën nga taxaw ci balance nga peese sa jëmm nga jënd euh, maanaam bu dee da nga wu nekk cinquante kilo nga jënd cinquante kilo dugub wala cinquante kilo ceeb wala cinquante kilo mboq nga saraxe ko te yàlla rek tax nag képp ku ko def rek suñu borom dana la musal ci mboolem balaa yi ak liy xew ci àdduna bi. vidéo bii nag képp koo xamante ne nii déglu nga ko ba pare partagé ko yàlla na sunu borom guddal soo fan ba nga am te mu ànd ak xéewal ak yu wér wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf.